jëmale jëmale réew mi réew mi kanam maintenant yoon bi ñu nekk man yoon wi laay wax du ma wax ci nit ki yoon wi réew mi moo am ay jafe-jafe te ku jiite réew jànkonteeg ay jafe-jafe loolu mooy dëgg te dina gën a tar

nga ne budget am naa ci problème loolu da ngay bàyyi ñi ko war a leeral leeral ko muy cour des comptes bu ko cour des comptes leerale bu boobaa dinañ xam li ñu war a def lan la mais boo taxawee wax ci réew mi am noo ko waxee walla noo ko génnee ba pare bëgg tabax réew mi da sotti ndax kenn du la wóolu kenn du la dimbali kenn du la jàppale kenn kenn noonu la àdduna bi di doxe mu neex ñu noonu lay doxe mu naqari ñu noonu lay kon li war mooy boo defee diagnostic xam ne lii am na nga xool lañ la wax ni am na ndax d'abord am na la ca am lan moo tax amul la moo tax mu demee noonu xam nga mbiru budget lu compliqué la ndax bari na réew di def loo xam ni pré prévoiru ko woon tey jii am na mbënd fële ñuy wax booru Bakel ñu ngi ci mois de d'octobre ku xam ni budget di demee xam ne li des bareetul par force gouvernement bi war na wut ay pexe jàppale ñooñu nan lañ koy defee ndax solution financière nan lañ koy defee ndax dañuy dagg ay crédit yi des yóbbu foofu loolu ku nekkul ci biir munoo xam lu mu doon mën nga sax def loo xamante ni ka koy saytu mën na jàpp ni lii kat warul Demeni fait sa responsabilité en tant que gouvernement mayu la nga def leneen lu dul gestion lu la audit lu sedd guy la booy gérer lu tàng ngay gérer booy auditer day ngay ñëw di wax waaw keroog bi ngeen demee Bakel mbënd mi nit ñaa ngi woon ci ndox mi li ngeen jënde suuf si jaaduwul kooku beneen affaire la kooku c'est dans trois mois ou dans quatre mois wala dans cinq mois lañu koy wax mais tey li war a soxal gouvernement bi li war a yitteel gouvernement bi mooy waa Bakel yi waa Matam yi ak waa Podor yi génn ci mbir moomu te gëmuma ni gëmuma ni gëmuma ni jëloon nañu matukaay yépp pour mën a def loola ndax amul gouvernement bu mën a prévoir lépp sa su ne bi may ñëw dégg naa étudiants yi ñu ngi doon yëngatu xawma lan la est-ce que amuñu xaalis non parce que bo amul bo amul bo fayul bourse yi ñaar la soit amoo xaalis boo fayee wala am nga xaalis mais amoo crédit budgétaire yoo fayee ñaar la li population bi di jàpp mooy fayuñu bourse yi amuñu xaalis waaye ñaar yi mën a am mooy am nga xaalis waaye mënoo fay wala am amoo xaalis wala am nga am nga xaalis mais mënoo fay mooy am am nga crédit budget amoo crédit budgétaire yi wala am nga xaalis waaye amul mënoo mënoo def neneen man xawma ci ban situation lañ nekk mais li muy wone mooy la ñu nattoon la ñu nattoon motul mais loolu jaadu na yoon la ci réew mu mel ni Sénégal la ngay nat boo demee ba at bi des tuuti du dëppook la nga xam ni waroon nga ko def kooku mënuma cee avancé xëy na sax li may def nii gouvernement bi lay jàppale ci ci ci wax ji mais c'est surtout li ma bëgg a wane li ma bëgg a wane mooy boo amee rapport waroo gaaw a wax danga nga war a xool situation bi jox ko auditeurs yi ñu xool li ñu décrit yëpp lu ci nekk lan moo ko andi nan la ko andee ak nan lañ koy saafara loolu rek laa bëgg a wax ci ci ci loolu les caisses de l'État caisse de l'État nag pour mu am xaalis jafe na surtout waxtu wi